Hmm, bismillah kon ñu fàttali rek ne ba tey ñu ngi ci suñu jotaayu tafsirul quran comme ni ñu ko baaxoo defee jamono ba nekk rek ci waxtu wi incha allahu taala suñu jotaay bu mujj ñu ngi yamoon ak yéen ci ci suñu borom subhanahu wa taala suñ maam aadama ngir mu xibaar malaayika ki tur yooyu nga xam ne laaj na leen ko te xamuñ ko muy yaa aadama am bi hum bi asmaihim فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون تاني تامبلاجي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين من وإذ نغفعت لك قلنا بني وخيان يالا للملائكة يالملائكي للملائكة اسجدوا نغين سجود li aadama ngir aadama li aadama ngir màggal ko ak warmal ko fa sajadoo te sujjóot ñoom ñëpp illaa iblisa ba mu des iblis nga xam ne moom rek mooy ka nga xam ne abaa bañ na li du sujjóot wastakbara te mu rëy rëylu wa kaana mu nekk minal kéefirin di bokk ci ñu wedd yàlla suñ borom subhanahu wa taala wax ne fàttalikul ñun yàlla bi ñu digalee mboolem malaayka yi ne nañu leen sujjootal aadama te malaayka yëpp daal di koy def sujjootal ko ba mu des menn iblis mu fetteeru lànk ne du sujjootal aadama sujjoot boobu nag du sujjootub jaamu waaye sujjootub warmaal ak màggal rek la waaw sujjootub warmaal rek la waaye du sujjootub jaamu waaye suñu borom moo leen ko digal ñu def ko ci ndigalul yàlla ngir warma ak ëpp gi mu leen ëpp xam-xam suñu borom xamal ko lu mu leen xamal ba defee nag ñoom ñëpp ñu sujjoot illa iblis aba wastakbara wa kaana min alkafirin iblis moom ne du sujjoot daane asjud li man xalaqu tatiinan ndax damay sujjoot ci koo xam ne ban rek la ci ban ak suuf ci nga ko bind daane man daal ana xayru minhu maa ko maa ko gën خلقتني من نار وخلقته من تين يعني ما بندي شيء سوارة تسوارة دفع لير توم يعني كو بندي شيء بان تبان دفع نيول كل ما هو جن دون ما كو كوارا سجودل سكر هناك فوق في لك سن برام سوف إلى لال سبيل رجاب لك فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين بوبي تمشي لسن برام نك جخلل سنمام آدم أك حواء جخلل دغلل بير الجنة سنبرم جخلل تراغ جتول الجنة ودحمل وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا عيش شئتما وعينك ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ويقولنا تاني وخن يا الله ne ko yaa aadamu uskun dëkkeel anta yow wa zawjuka ak sa soxna aljannata aljanna wa kulaa te ngeen sañ a lekk minha ci aljanna raxadan ci yaatu mboolem meññeti aljanna rek sañ ngeen koo jëfandikoo mboolem ay naanam sañ ngeen ko jëfandikoo xaysu situma fu mu leen soobe ak nu mu leen soobe waaye nag wala taqraba bu leen jege haadihi shajarata gile garab fa naa ba ngeen di nekk mina zaalimiina di bokk ci way tooñ yi suñ borom dugal ko aljanna ak soxnaam muy suñu maam Hawa jox leen digal ci suñu jëfandikoo ci mboolem meññeeti aljanna ak i naanam waaye suñ borom ne leen garab gi nag moom bu leen ko jege mukk am genn garab goo xam ne daf leen koo tere waaye seytaane mi nga xam ne looloo na leen mooy ki nga xam ne moo leen yàqal ba lekk loolu ca garab googee mhm. moo tax alquran di wax ne fa azzalahuma cheytaan fa azzalahuma te tarxis loo leen acheytaanu cheytaan anha ci loolu fa axrajahuma ba mu génnee leen mimma ca la nga xam ne kaanaa nekkoon nañ fi ci moom yenn seytaane nag mooy kileen leen tarxiis loo wàcci loo leen ba ñu lekk ca garab ga ba tax ñu génn foofee ñu nekkoon ndax bi nga xamee ne nekk nañ ci biir aljana ji seytaane ci boppam moo def ay pexe ba lekkaloo leen ci garab googee nga xam ne suñu borom daf leen ko tere woon ndax seytaane bi mu ñàkkee sujjóotal aadama lañ sippi darajaam suufeel ko lool tiwul boobu ma nga woon ci malakutu suuf laa malakutu suuf laa ci la nekkoon waaye xam nga jëmmi malakut ci boppam lépp malakut rek daanaka benn monde la boo xam ne ñu nekk ci malakotu suuf laa it bu dee dañuy am gis-gis ak dégg-dégg ci malakotul ulya seytaane nag moom ma ngi woon ci malakotu suuf laa waaye teewul dégg-déggam ak gis-gisam da doon dem ci malakotul a'la moo tax seytaane yàqal gi mu leen yàqal ba lekkaloo leen ca garab ga tekkiwul ne da leen a fekk si ca béréb ba donte ko sax am na nettali yoo xam ne moom loolu la ñuy wax naan seytaane dafa def pexe ba dugg biir aljanna hmm, waaye seytaane foofee ko suñ borom dël rek fa la nekkoon dafa tolloog biir malakoot gépp rek benn monde la benn alam la boo xam ne ñi ci suuf du tee ñu am digg-digg ak gis-gis ci ñi ci kaw loolu moo mu mënoon a nekk fa mu nekk te du tee mu mën a wàqanteeg ñoom ak di leen gis nga xam ne fa mu nekk ca suuf foofu fa la wàqanteeg ñoom fa ñu nekk ñoom ci kaw ni leen yéen day seetlu naa ne bi ngeen nekkee ci aljana ji ba léegi yéen a ngi jëfandiku ci mboole ndox ndox yi ak meññet yi waaye gis naa ne garab gee moom laalu leen ko boobu ba tey am na nag lan moo tax lekku leen ci garab googu suñ maam aadama ne ko garab googu kat su ñu cee jëfandiku ndax suñu borom dañu koo tere nee nañu wala taqraba haasihi shajara ah seytaan ne leen yéen de xamoon naa ne seen boroom dana leen tere garab googu ndax garab gi mooy shajaratul xuldi maanaam garabu sax la garab la goo xam ne ku ci lekk dootoo dee te dangay am nguur ni ko yàlla ame yàlla nag bañ ngeen nekk ci rek te dee ak itam bañ ngeen am nguur ni mu ko amee moo tax mu bañ ngeen lekk ci garab googu moo tax mu leen koy tere daane wax qaasimuhumaa innii lakumaa la mina naasihiin ne man nag maa ngi leen di waatal ne dama leen di laaj weer rek xamoon naa ni seen borom dina leen ko tere ndax bëggul ngeen am nguur ni mu ko amee te itam bëggul ngeen sax fi te garab googu bu ngeen ciy lekk rek dootu leen dee te ngeen di am nguur moo tax alxuraan illa an takkoona malaka yi bañ rek ngeen nekk di ay buuru moo tax mu bañ ngeen lekk ci garab googu loolu nag wax nañ ne ci la nekk ba suñ am xawaa lekk ci garab ga ginnaaw ba ca xawaa nekk itam aadama jëfandiku ca looloo tax suñu boroom ñu ngi leen génnee biir aljanna te garab googu nee nañ mooy garab gi gën a ñàkk solo ci biir aljanna garab gi gën a ñàkk solo gën a naqari wex ci biir aljanna moom leen suñu borom dana tere garab googu sax boo koy xool ba tey mi ngi ci àddina mooy sajaratul ism mooy garabu bàkkaar moo tax bañ ci nekkee rek lañu tooy seen boroom bi leen tere woon ñu lekk ci te gaaf la moo tax bañ ci lekkee rek li leen njëkk dal mooy nduppi russe nekkoon seen bopp yow ñoo jekki-jekki ne mef see ci leer yàlla ngir mooy gën mooy yàlla tax na yooyu moom nangoo tuñu tege ci seen kaw di leen yiir seen yére bopp yu taaru yi ñu soloon tam jékki-jékki rek ne tafeet dem bàyyi leen moo tax alxuraan wa tafixa yaxsifaani jooju muy wax naan ñuy fàq ci xobi garab yi nekk ci garab yi aljana yi di ko taf ci seen kanam yi ak seen awra yi ndax seen yére yi dalee leen mere dem bàyyi leen ndax mooy giñ mooy yàlla mbir yi tàmbalee doy waar ci ñoom lool ñu jaaxle lool jaaxle lool jaaxle lool waaye yàlla rek xam nga ci yërmandeem ju bari ak yërmande sayidina jibril alayhi salaatu wasalaam ki la demee ba ne leen yéen day day ndeysaan xool leen ñeewanti leen lool ci ndigal yàlla nag moo am ndigal ci mën a wax ak ñoom leen yéen day wax dëgg yéen yéen a tooñ seen bopp ndax seen borom daf leen a digaloon te lam leen digal moom ngeen waroon topp waaye defu leen ko seytaan digal leen ngeen def leen seytaane wax kon yéen wax dëgg yéen a tooñ seen bopp waaye nag seen boroom moom buur bu baax la bu bari yërmande boo xam ne teewul bu ngeen ko jéggaloo rek mën na leen a jéggal daal leen sa baati jéggalu ñoom ñaar ñi ànd di ko wax ba suñu borom jéggal leen ci lañu ànd ñoom ñaar di wax naan qaala rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaasirin aadama ak xawa ànd di jéggalu suñu borom ci baat yooyu ba suñu borom jéggal leen bi leen suñu borom subhanahu wa taala jéggale fii ci àddina ne leen loolu moom comme def ngeen ko duma leen delloowaat aljanna ci sens dama leen yóbbu àddina béréb la boo xam ne bérébum natt la ci yéen foofay dinaa leen fa joxaat ay ndigal ak i tere ku fa lu jëfe ndigal bàyyi tere su dellusee ma dugal ko aljanna koo xam ne nag nekkaat na fa ci ay tere bu dellusee sawar laa koy dugal loolu moo waral aadama ak xawaa ñëwaat fii ci àddina ndigali yàlla itam fekkaat ñu fi ak tere yi ñu war cee taxaw bu baax ngir ñu mën a dellu aljana ñun ñëpp te xam ne mooy suñ kër gu njëkk dañu xam ne suñ maam ci lañ ci la woon ñu war a góor góorgóorlu ba dellu ci insha allahu taala kon loolu lenn la ci xis aadama ci digganteem ak iblis noonu mu leen yàqale fa azalahuma cheytaanu anha fa axrajahuma mimma kaana fiihi tarxiis noonu leen ci li leen yàlla tere woon defloo leen ko fa axrajuhuma ba génnee leen mimma kaana fii ci xéwal googee ñu nekkoon ba tax na wa qul naa ñu wax ñun yàlla ne leen ishbitoo wàcc leen ci suuf da ngeen xam ne nag baadukum lenn ci yéen aduwun ay noonu lay doon li baadin ñeel yenn lenn ci yéen lenn ci yéen ay noon lañ ci seeni moroom ne leen wala kum ñeel leen nag fil arda ci suuf mustaqarun ab saxwaay da dangeen amaat beneen xaraar ci suuf wa mataaxun am ngeen fayit béréb bu ngeen mën a xéewloo mooy samay xéewal dana leen fa fekk ilaa xiinin ba jamono ji soob yàlla kon loolu la aadama ak xawa wàcc ci kaw suuf nekk ci ba ñun ñi ñëpp ñu sababoo ci loolu te kenn umpaliwul na ñun ñëpp ñu ngi dellu nànk-nànk gis nga ñu bari dellu nañ ñi dellu te fekkoon ñu nekk ci ndigal doon mooy di tere aljana rek mooy seen kër ñi dellu nag te fekk nekkuñ woon ci ndigal te moytuñ woon tere ñooñu sawara mooy seen kër loolu alquran moom moo ko wax suñ borom delluwaat rek di nettali loo xam ne ba tey ci xis aadama la bokk muy sag yi nga xam ne moom la leen sax baati jégglu yooyu muy mu sawoo آدم آدم تي من ربه تي بروم كلمات أي بات دي تي جي قول سن برام مي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نحن سيدنا جبريل مولين كو خمال تي نيغلو ليالا يتي جي قول سن برام فتاب بمو جي قل غليه تي موم بيالا مو جي كو موك سخنام إنه ورنن يالا هو موم تي دق دق at tawwaab rahim at tawwaabu ki nga xam ne ku mën a jéggale la rahim mooy ki nga xam ne it ku bari yërmale la sun boroom nag bi leen jéggalee ci la leen wàccee ci kaw suuf moo tax ma ne xul naa ñu wax ñun yàlla di leen yéen kat ishbitu minha jamian na ngeen daal di wàcc bàyyi fii ci aljanna ji dem ci suuf foofu léegi mooy fi ñu leen dëral war leen faa fekk ci ndigal ak i tere ku ci topp jëfe ndigal bàyyi tere bu del see dugg aljanna ndax foofu bi leen wàccee ci kaw suuf suñ maam aadama ci boppam moo ko laaj ne ko suñu njaboot ana lan moo leen di musal suñ ko duma leen bàyyi jamono bu nekk naa di wàccee ndaw loo xam ne da leen di woon dëgg ak njub suñ ko toppee rek ci jëfe ndigal ak bàyyi tere bu ñu egsee ma yóbbu leen aljanna koo ci xam ne nag toppul sama ndaw yi may wàccee ci jëfe ndigal ak bàyyi tere it ba gisee ma yóbbu ko sawar rek mooy fa imma yatiyannakum mooy dana leen di dikkal min nii bàyyi ko ci man yàlla hudan ak njub loolu nag mooy mboolem morsalin ak anbiyaaw rek ñooy njub gi nga xam ne ñoom la suñu borom subhanahu wa ci kaw suuf léegi nag fa man tabia ko topp hudaaye sama njub yooyu may wàccee falaa xawfun alayhim wala hum yaxsanun képp ko ci xam ne njub gi may indi mooy yonente ba may wàccee ci ñoom danañ ko topp ci jëfe ndigal ak bàyyi tere suñu delsee duñu tiit dara duñu jàq duñu tiit mooy falaa xawfun déet genn ak ragal alayhim di nekk ci ñoom wala xam te déet ñoom yaxzanoona ñuy jàq suñ yeboo seen xel dal jàll nag daal di wax ñi nga xam ne ñoom dañoo weddi yàlla wax ne wala zina ñi nga xam ne ñoom kafaroo dañoo weddi wa kazzaboo te ñu fenloo bi naa ci suñuy aaye wax ne alquran bàyyikuwul ci ñun yàlla ulaayika ñooñu ci dëgg-dëgg asxaabu naari ñooy waa sawara te hum ñoom xaaliduuna way sax lañ fiihaa ci sawara waliyaasu billah suñu borom nee na ñooy waa sawara dëggantaan te itam dañ fay sax suñu boroom àddu nag di wax ak banu israil muy ñi nga xam ne ñooy yahudi na yaa banni israila اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدي اوف بعهدكم فاياي فارحبون بني يا بني اسرائيل رك من جيبل مبالم دوم يعقوبي nga xamne ci la yepp ci yori macc ba nga ni mune ubbu kuro التي ni'amati sama xewal allati gi nga xamne anamtu xéwale naa ko aleykum ci yéen kon nag wa aw foo na matal bi ahdi ci sama daalante ak sama kóllëre gi jàppante ak su ko defee ñun yàlla it oofi danañ matal bi ahdikum ci li ngeen yaakaar ci man muy li ma kóllërante ak yéen ci war leen koo defal waaye nag wa iyaaya man rekk nag faraxa booni na ma ragal suñ borom mooy fàttali yahudi xéwal yi nga xam ne defal na leen ko ci kaw suuf di leen wax rek ne leen góor leen ngeen jéem a matal li ma daal daalante ak yéen te xam ne bu ngeen ko matalee da ngeen fekk man yàlla yit ma matal li ma leen daaloon wa awfu bi ahdi uufi bi ahdikum wa iyaaya farhabun mhm.